sax foofu la ñuy mhm. ndax gis nañu des fois itam ça arrive mhm. euh, bàyyi jur doom mhm. la ca jot a xew yëpp itam gis nañu ko euh, mën nañ wax ne des fois doom day jóg di wëri baayam après bàyyi du reconnaître doomam dem ba doom ji màgg ëllëg uh-huh. doon quelqu'un ci dëkk bi uh-huh. doomam beddi ko mën nañ ko tuddee noonu mu jóg naan sama doom respecté wu ma. xam nga problème mu Pawlish bi ngay wax. je pense que loolu la de su ma jëw <laughs> tey bu ñu ko doon analyser kan moo am toor ci diggante wayjur bi ak doom bi. <laughs> kan moo am tort. Hmm. maanaam ñëpp la responsabilité. partagée non xam nga Pawlish moom coowoo koy dundal. Hmm. mais lii wayjur bi dafa génn wax bay tuur ay xéewal. bon xam nga mënuma wax dara waajuram. Hmm. mais mm, am sa doom te reconnaître la. Mhm. dafa metti tout à fait. kuy waajur parce que ñu ñëpp ay waajur lañ. Mhm. Mm, mais euh, pour man mm, man boobu bu doon man mu dal ma ñaanuma ko yàlla mais du ci rajo yeeg média yi laa koy lijjantee. suba damay laaj man sama bopp waa man lan laa def ba sama doom beddi ma. Mhm. sama doom nawloowu ma. xam nga coon sekk am na benn wax gu mu wax xaw ma. ku bàyyi xaw ma lan boo juddoo dangay naw sa baay baa nga je ne sais pas am na nu mu koy interpréter quoi. Mm-hmm. mais li nga xamante ni moom lay wax mooy que ni dëkk bi des fois damay coller euh, société multi multimédia yi muy audiovisuel yi. Mm-hmm. il donne le micro à n'importe qui. Mm-hmm. muy wax n'importe quoi. jox la importance boo xam ne amoo ko. parce que tamit micro c'est quelque chose ah. di boo demoon Angleterre. pour nga nekk un chanteur. dangay jaar ci ay examen yu bari balaa ngay feeñ ci télévision bi. Mhm. parce que il ñu xool qualité musique bi ngay def. tout à ak message bi ngay véhiculer. Mhm. parce que est-ce xam nga ne kàddu waykat day dem foo xam ne kàddu imam du fa dem. Mhm. est-ce que nga ku ëpp taalibe ci monde bi Bob Marley. wallaay. <laughs> le ko bëgg ci àdduna bi dëkk boo dem te il est xam nga lu tax. qualité de musique bi ak message de de de de de paix et de valeur bu mu doon transmettre. Mhm. parce que Bob Marley dafa créer loo xamante ni mooy peuple àdduna bi daf leen boole def leen benn. Mhm. ñu am fu ñu daje. Mhm. est ce que yaa ngi dégg wàññi. maa ngi dégg. te kàddu artiste moo gën a sori sax kàddu pape bi moo gën a sori kàddu imam. moo gën a sori kàddu kàddu kàddu religieux. ma jox la benn exemple. tey Jamaïque ba ñu nekkee dans une situation politique très intense. nga xamante ni ñaari opposant yi comme tey ji Ousmane Sonko ak Macky Sall ni niñ mel mhm. mais Bob Marley moo tëdd concert invité leen ñoom ñaar ñëpp parce que icône la kenn sañul bañ eh. parce que ku nekk bëgg nga poplu euh, Bob Marley ànd ak yow ànd ak yow mhm. kan mooy icône musique Sénégal sa fi mu toll nii Youssou Ndour mais pourquoi Youssou Ndour génnul def benn geste boo xamante ni concert def benn geste boo xamante ni day jéem a réunir Macky Sall ak Ousmane Sonko ñu toog. parce que la majeure partie des sénégalais. Ah. jàpp nañ ne. Mhm. Youssou Ndour Macky Sall la ndal. mais moom artiste la. artiste ah, mais mais Youssou Ndour peuple ko def li mu doon. tout à fait. peuple bi te ba muy ut. ba muy créé partem boobu ñu tuddee fekkee ma ci boole. Mhm. j'aime pas mhm. fekkee ma ci boole parce que c'est un peu égoïste quoi. fekkee ma ci boole <laughs> mooy damay séddu quoi. <laughs> c'est c'est un peu maanaam. dafa xaw a reetandu. fekkee ma ci boole mooy ni gars dañoo rëb bi ba wàcc sonn mm. sonn seen sonn ba teg ko di seen doo nga ñëw taxaw ne da ngeen may cër par force wàllu gaynde. <laughs> comprendre nga. <laughs> c'est mais. Mm-hmm. l'artiste. Mm-hmm. c'est le xanaa xamoon ne artiste. moom mooy moom mooy psychologue peuple bi. Mm-hmm. di nga dëkk musique bi ñuy déglu boo bëggee xam seen intelligence fu mu toll xoolal musique bi ñuy déglu. moo tax Sénégal c'est un peu sax le mbalax quoi en quelque sorte. parce que musique la koo xamante ni ça t'inspire pas d'être à la grandeur. sa hmm. oriente beaucoup plus vers euh, la perversité tu vois. Hmm. la hmm, tu parce que tu sais que musique araamul quoi. mais bu njëkk ba sax mbalax mi message daana Thione Seck dafa woy bu. yeetewul baaxul. xam nga contrairement ak ak ak doomam bi Waly Seck ah, mm-hmm. parce que barki démb rek maa fi dégg moom chaque année mu am benn casino ci dëkk bi ko comprendre que. c'est c'est vrai ah, mais il faut que ñu xoolaat euh, tu vois waykat parce que ma j'aime bien les rappeurs ah. parce que le message sa passe quoi. le message est dans le rap. Ah, yaa ngi dégg wax ji. Mhm, mhm. maa ngi ci Sali wala Gaston. sama mbokk taay la Bandi Mike <laughs> est-ce que yaa ngi dégg wax ji. c'est vrai. mais musique c'est une thérapie. day faj spirituelle du cœur. musique day faj xol day faj feebar. tu vois donc bu ñu fooyee musique bi quoi. d'accord tu vois. jërëjëf. ak ça. ñu jeexale ak daara ji. daara ji maslakul xuda mhm. euh, mi ngi euh, Médina 27 mhm. angle 28 mhm. foofu lay tarbiya euh, ñu bëgg gis yàlla foofu laa leen di wane yàlla foofu la buñ may fekk ma wan leen yàlla di jiital ci liggéey bi sunu sang Cheikh Moussa Touré jox ñu ci ndigal Euh, moom it mu jëlee ndigal li ci Cheikh Moussa Cissé Ñambe Daaru mhm. euh, ci wàllu tàllale message bi mhm. parce que ñàmbe dafa ne xam yàlla gis yàlla àgg ci yàlla laa woote mhm. daal di nag wooteelu ma rasulullah wooteelu ma Serigne Touba wooteelu ma Cheikh Rafal wooteelu ma Baye Niass wooteelu ma Cheikh Ahmed Tidiane wooteelu ma Alaaji Malick wooteelu ma Limaamulaay yàlla laay wooteel ku yàlla bind maa ngi ak sa njariñ mhm. kii yónni woon ñooñu moom ma yónni ñoom lay li ma yor moom moo ko alalu yàlla la bëgg kaay jël mhm. léegi nag ku bëgg vraiment mhm. xam yàlla gis yàlla àgg ci yàlla su ma contacté ci numéro 78 437 43 77 on est disponible ku bëgg tamit information kese tamit ñi ngi on disponible koo xamante ni nag xam na yàlla àgg na ci yàlla gis na yàlla on est prêt aussi pour échanger. d'accord moo tax ñu ngi am ci projet wu créer sunu mouvement tuddee ko yeeslu. parce mhm. que ne créer ay centre culturel yoo xamante ni bëgg nañu échanger ak euh, ñi gëm yàlla xam ko. Mhm. ak ñi gëm yàlla te xamuñu ko. Mhm. ak ñi nga xamante ni gëmuñu yàlla xamuñu yàlla. ñooñu ñëpp on est prêt. pour échanger ak ñoom. ci suñu expérience. parce que sëñ Touba dafa ne toolu lislaam ñetti ñetti waar la. Euh, sa diggante ak sa borom muy lislaam parce que jaam bi mhm. benn bor rek la amal yàlla muy lislaam mhm. li ci des mooy sa diggante ak sa communauté parce que lépp loo fi am communauté bi moo ko def ci yow ñoo cotisé ba nga parce que mhm. ci l'argent di contribuable xaalisu dëkk bi ci la ñuy jàng ci la ñuy fayale xale yi école mhm. ci la fay professeurs yi ci la ñuy fay médecins yi ci la ñuy fay ñëpp mhm. comprendre nga leneen li ci des mooy àdduna bi Sénégal ci àdduna bi la nekk dans les rendez-vous internationaux war nañ fa mën a représenté le Sénégal siggil ko gis nga fi mu toll ni Sénégal ba mu nekkee ci jafe-jafe Afrique ñëpp a tiit àdduna bi ñëkk a tiit ah parce que symbole de démocratie la symbole de la et li may ñaan Macky Sall rek mooy que vraiment bu mu mujjee puso bi mu réer mhm. waaw waaw bu mu mujjee puso bi mu réer te wolof Njaay dafa ne ndap moom boo ci lekkee ba suur mm. defaral ba mu jekk moo gën ba keneen mu ñëwee mën ci lekk quoi <laughs>